riir bi mu am ci àddina si yëpp ak fii ci Sénégal Sénégal yëpp ko mettit la ba bi may ñëw nii tey ku nekk mu ngay euh, yëkkati ay jaalam loolu parce que moom moo ko dund dafa wane xar kanam boo xam ne mooy xar kanam bi ñu namm si doomi Sénégal maanaam ci wàllu xare pour sa réew nga joxe ba jeex Pape Pape euh, Bouba de 2000 presque ba 2004 euh, il était de tous les combats pour le football sénégalais ci biir terrain bi tamit. Euh, benen xar kanam la doon pa bu duggee si terrain gaynde lay nak kenn mënu ko té muy lew fouré et au moulin bi té tane mëna né mom moko doon gérer mais bu do yamé lolu bu waré décisif mom moy dem dugali coupe du likoy koy moy coupe du monde bo xamné ci milieu défensif bu dem dugali ñetti but ginaaw ñetti bi yoy gëm na né bo ñu dugal contre France ak yi mu dugal contre Uruguay buñ ko ci dindé kon xëj na Sénégal du yegg fi mu yegg donc lolu rek wane na yam en tant que joueur mais bu génné ci biti bi benen nit nga daan gis pap bo xamné bu sedd bu dal Euh, doo xam sax ne star la du wane boppam ci dara mu ngi suufeel boppam yemale boppam ak ñëpp gis ngeen sax li mu ko waxee léegi ak feebar bi yëpp mu munoon na yëkkati àdduna si yëpp ne Pape Bouba dafa feebar mais kenn déggu ko ba ni muy génne àdduna donc vraiment def naa loolu la ko askan bi di fay tey pour mën ñëw ko rendre te gëm nañu tamit euh, li mu wone mooy xar kanam bi nga xam ne bépp doomi Sénégal war nga war nga war a am ci boo waree engagé wu pour sa dëkk nga joxe bu ba jeex boo waree sëq ak say askan nga wan leen yar wan leen tëggin wan leen suufel sa bopp loolu la wane donc loolu rek jar na ñu sargal ko tey te gëm nañu ni ñu koy sargalee yàlla noonu la koy sargalee ci këram bi mu koy dalal fële ca Rufisque.